ay Sénégal njaagi nam nañ leen siyaar nañ leen oxo ñu ñëwaat sixième combat si journée Faye production diggante Ramdan Junior ak Boy Dam Boy Dam ñu woon ginnaaw moo ñu woon ginnaaw Ramdan Junior Boy Dam Ramdan moo ñu woon kanam waaw ndeysaan mbokk wi arbitre suuf na wa dem na këng mbaxe mag dem dañ tàlli Ramdan Junior a ngi dox si kawam mi ngi dox si kaw daam ay daam daaw di na jël ko Ramdan Junior ah, ah, dëkku na ko dëkku ko dóor ko ñaari naax taxaw sa ngay ron sa ya ron na benn épercule sa faar yi loolu day neexal combat boo ronaatee beneen mu neex ngemb nga téye amul saas bàyyil benn loxo bi di ron si faar yee waaw waaw gis ko kal na ko kal na ko bañ na delloo na ko kal ba day remis na ko Ramdan daan nañ Ramdan Senior waaye daam daan na Ramdan Senior waaye Ramdan Senior sa jëli bi yomb na de waaye waaw avec manière ay waay ay waay ah mais bi neex na waaw waaw bëre bi day gaaw neex wallaay entraîneur ba kott na ko oh, yaram daw na oh entraîneur baa ngay waaj a tur xewal muñal per waaw ndam daa neex noo ko amee neex na waaw waaw Ramdan Senior daam daan na ko jël nañ fay production waaw ñu nga ko indi ñu nga xale bi waaw ku juumul doo daanu bëre ka day daanu Euh, mondial